dal leen ak jàmm si seen rajo bi jafe roy rajo Ratanga sama gaañ yi dëgg la kenn warul dugg ci lu yoonam nekkul wala sax na ku nekk tal ay problème am balaa muy wax ci problème mu jàmbur ndax yaay ak bàjjan ñoo wax dëgg wala déet di naan Emadé na feral doomam ji ndax assistant dafa waroon dimbali Aminata wala mu seetaan ko ca bi mu njëkkee ñëw ci centre de santé bu Ratanga. kenn ku si nekk ci ñun ak ni mu koy gisee xariti ratanga ak feneen kon boog ay ca ñu demati tonti dama ko doon dimbali bi mu amee ba léegi Emade dafa sonn Emade dafa ëmbati mhm. démb ci tali bi la doon waaj a daanu oh ndeysaan Emade xale bu ndaw la te ëmb yu jege yii ci at yi mu am nii loolu baaxul ci moom dafa war a di noppaleku. en tout cas tanti maa ngi koy ñaanal ay jumelles. ah. ah waaw dafa am chance am ay doom yu bari mooy assurer sa retraite sama papa moo ma ko wax de. ma ne kenn jurul ay doom yu bari ngir assurer sa retraite sa yaay dafa doon nef di jur di teg rek looloo yóbbu bakkanam ba tey nekk fi pour mën la gis nga màgg kii de sa papa moom war naa jël ay responsabilités mere naa ko torop ci li mu ñàkk toppatoo sa yaay nekkoon sama raq bu baax yow boo paree nga dem marché man moom maa ngi seeti Emadi mm-hmm. d'accord defal ko examen vaginal. ok. maa ngi fii dinaa la toppatoo dakka d'accord dina baax. xaaral ma jëlal la sa tension. ça xàmmee nga ma. si yow mooy métti sa biir day métti bu baax ok bon dama lay defal examen xool ndax biir bi la dallul déglu ma nooyil xool ma nooyil bu baax yëkkatil tuuti sa tànk defal nii voilà baax na ndànk laay def dégg nga voilà nooyil bu baax day métti xaaral ma seet neneen d'accord Aminata defal ndànk rek maa ngi nii. lu ko dal. moytul dina baax Aminata wàcceel say tànk balaa ngaa gaañ sa dina baax dégg nga demal seetal ma docteur Moulay te nga indaaleel ma beneen kit Rochelle yaay yaay man la accident boo jotee sama message nga woo ma léegi Aminata xale bi moo dellu siwaat moo ngi nii sonn torop te xaw ma lan war a def alors docteur Moulay dafa dafa jàpp dafa am césarienne bu muy def lan soxlawuñu woon di. mais uti ndimbal lay def dina baax Aminata d'accord yaay dina wàcc léegi lépp dina baax. cër bi borom il faut que nga bàyyi ween bi ak bébé bi nekk ci biiru yaay nag Emade Emade naam maman ma ne lan ngay defati ci biir néeg bi dama doon nàmpal bébé Sali na nga ranger sama te nga fabere ëtt bi gisal fii nu mu saltee maman man damay miir su ma sëggee torop xam naa ëmb bi la ah waaw nekk jigéenu biir day du feebar ma ne soo ci bëggee profité ngir bañ a def sa liggéey ndax nga sa bopp de defal li ma la wax ma ne li ngay tayal yëpp nga gaaw yow demal sa jot na waay téye ko bu baax Emadé wax ma na nga def ñëwatoo ci centre bi. ça va lan moo tax waxoo ma ni da nga ëmb yow tamit. dama yaakaaroon ni beneen sage bi na la ko yëg. oh Emadé bàyyil sa yii nag xam nga bu baax ni faw nga feral sa doom ji ngir nga mën a waajal sa ëmb bi nañu doxantu tuuti. mais waxuma woon ngir jàppale assistant la. Corsa s'il te mënuma dara ci moom te sax yaay ma waxoon ne assistant moo ko war a toppatoo te ku xool soxna si xam ne dafa soxla sage-femme bu xarañ lool ci liggéeyam. waaw li nga wax dégg naa ko loolu moo tax ma ne nga jàppale ma ndax aw ma si benn pexe. dafa am loo ko jox walla. non jotuma ko jox dara xaw ma woon lu ko jot. kii mënuñu koo faj fii woowal leen ko seen waa kër léegi léegi te ngeen jéem ko yóbbu nu mu gën a gaawee hôpital. mais war na la est que ëmb bi yàquwul. te ñoo jéem ah soo jéemee nag fii ba rey ko loolu sa affaire lay doon man kenn duma taqal ci sa yu bon mbaa say njuumte ok. Corsa doo xaar. yow ay may ma laa wax. danser, va danser, c'est la vie, la la la la la. On va danser, on va c'est la vie. Tey la bu suura poow yaay ah bon lu ma def rek ngir bànneexam mu xeeb ko. Ah, mu ñal rek soo bëggee mën naa dem ak moom. ah non fa dem kon mu rey ma. ak lu mënti am sa santé moo ëpp solo ñëwal ñu dem ci bàjjen. Hmm. ma won la ban meew nga war a jënd ngir feral sa doom ji. ah non non bàyyi yaay aw ah non nangul rek ñu dem nga may ma ñaari minute te yow sax amatu nee na daf lay ñëw seet ñëwal rek ñu dem la sa njariñ la ah. should end my day. Wow. Amatou xamoo fu ñu gisee yaay dañ ko soxla léegi urgent. T'inquiète doy na waar ku dul changé mukk Kosta bul dem waaye jàppaleel assistant yow réputation centre bi moo nekk en jeu. et eh, man def naa lépp li ma waroon def dégg te man dama am samay malade yi ma war a seet te ci kanam tuuti rek ma wàcc li ma leen di digal nag mooy ngeen woo nu mu gën a gaawee ambulance. feral ko mais bàjjen tanti xale bi amagul sax un an. mag moom bi mu ëmbee mi ngi doon nàmpalaale ay seexam. waaw sa mag moom mu ngi dëkk ba te foofu am na ñu ko mën a jàppale te yéen ñaar bokk leen corpulence eh ma sa doom ji jot na lépp lu yaramam soxla ci ay ferñent yu baax depuis six mois léegi nag pour lan nga ciy jaaxle yow tamit d'ailleurs sax fan laay jëlee xaalis bi ma koy jëndalee meew mi mu war a naam na sa xel dal pour yow rek mun naa la lebal ba nga am nga fay ma mhm. heure boo amee jox ma mu ngoog nag am Rukuba du nangu jamais may yokk suñu bor bi hmm. déjà que dafa bari lool maak yow suñu diggante lay des he sa ardoise pour yow kese <laughs> te du lii la gis nga dina gën a baax yow tamit foog nga am confiance gisal lii meew bu gën ci xale yi dañ ko defar spécial pour màggaay xale yi yaay ju baax ni nga def lay def di inquiété wu ci doomam waaye léegi nag toppatool sa santé ngir yow tamit nga mën a mucc ci ëmb bu àggul Rokoba dina gis bu baax ni feral naa xale bi te dina nekk enfer wooy mi ngi nee di ñëw bëgg ma mu gis na fii demal ci gën gaaw si biir boutique bi vas-y acca teel teel lakkale ah gis nga ko de. salaamaaleykum. ah bonjour Kuba. yaaye ay maa yàkkamti woon ñu daje. damaa amoon duma jaaxal. Hmm. te yow kese yaa ma ci mën a tontu. Ah, wax ma lan nga bëgg xam foofu. am nga lenn loo xam ni di mën a tere jigéen mu ëmb. Ah, pa gumawa ng saving. Halibi. Mutunasi. Aminata! Aminata! assistant de la soxla léegi centre ba téléphone urgent subhanallah taxi taxi gaaw waay accident Ça va lan la sama soxna wan leen ma ko mu ngi fii. xoolal ana la dal ngir yàlla. mani c'est parce que kenn bugg la yow looloo waral nga bugg tas say jaamur yi. Aminata daa mujjee noppalu dafa amoon ay complications. appel yi ndogalu yàlla sama doom gisoo ni maa ngi ci liggéey yow tamit. da ngaa wax ni man aw dara lu may def lu dul tambaambaalu rek ni ni xar loolu la. bul ma wax loolu ma waxul tata. man rekk nga am ci mbokk fi nga nekk sama taawu ma nga war a taxaw samay soxla. loolu nga bëgg baax na yàggatul danaa la yóbbu village su may jot. ba kañ. lu la neex waaye naa la xamal lu tuuti nag takk jabar ju rafet baax na de nga jéem koo téye moo gën. loo bëgg a waxati nii. <laughs> ak jabar ju taaroo ni bagaar sa xel war naa dem ci kuy daw ci gannaawam topp ci gannaawam <laughs> gis naa de amuloo jot te bëgguma laa déranger lu yàgg xaaral xaaral xaaral xaaral tuuti rek soo bëggee yaa ko gis nii amaguma client non non dinañ ci waxtaan lu yaatu bu ñuy dem village kañ nga waxati lañuy dem sax kañ nga bëgg ñu ànd semaine bii di ñëw ci laa bëgg ñu ànd dinaa mën a libéré wu kan mooy topp ci ginnaaw Magar. gis nga bëgguma di wax ci lu sama yoon nekkul sax su ma nekkoon sa place dinaa bàyyi xel ci heure liggéeyam rafetul ci jigéen ju yor njaboot di yàgg lool ci cyber café. tanti wax ma dëgg. dama ko bett du benn yoon moom ak dulaa ni patron te si jotaay bu dalul xel. dangaa war a bàyyi xel sa jabar tanti tanti gis nga soxlawu ma tamit nga may wax lu ma war a def de noo ko bëggee rek waaye bul ne mukk waxuma la woon dara bés bu lépp feeñee ci ratanga sama garde jeex na dama tas cey bés bi yaay ça sa xel dafa nekk ci ndem si yàlla si ba léegi xam nga nag mënoo nekkandoo fépp nag bi ma ko seetee ci laa gis ni mu ngi doon ñàkk deret ku bari amatul dara lu nu mënoon def même soo fi nekkoon itam dara du si changé. si mënoon naa hôtel yi ndax man dinaa doon jàppale assistant moom kenn warul loon jàkkaarloog bi problème. gis nga nag yaay Aminata du doon ki nga xam ne mooy mujj dee fii ci Ratanga sa gone gi nag dina ci gis lu bari. waroon naa fi nekk ba jàppale ko loolooy wax ji kox saa la nekkoo fi woon ba jàppale ko <gasps> kii moo doon patientam bu njëkk patientam bu njëkkam sax yow lii suñu faute la yow looy wax nii. yow man waruma la woon suivre Aminata dee na à cause de nous lii suñu faute la Corsa waxuñu woon sàcc dara si kit yi dinañu am ay problème bu ñu xamee lu ko. ubal laa wax reyuñu kenn Aminata mënuloon mucc ci lii ëmb bu yàqu bu ko indil jafe-jafe la. yow léegi lu tax jéemoo ko jàppale. fekk wees na duma fa nekk di xulli moo te xale bii jaay xam lépp su ma mënoon métier bi bu baax kon dina ko doon gaaw gis lii sax moom dina ci jàng bu baax pour beneen yoon balaa moo neex sax na dem yoonam abal ñu nag may ñu pour de boo rafetoon na torop mhm. mais ba mu des boppam bi mu ngi mel ni nga di piri mais noo mënee wax lii yow te Manhattan Salo moo ko defaral boppam bi attention te moo demoon ci Ratanga Salo ba xam dangaa soxor donc yow doo wax lu baax man xam naa la ci lan ci karawam bien sûr hmm. mon dieu man de ni ma def sama bopp bi nii moo ma gënal fuuf sax ah loolu la jox ma sima bi non yàkkamtiwuma mën naa la gunge amul problème. mën naa ko defal sama bopp s'il te plaît. ah d'accord. dinañ si waxaat. baax na ok ci kanam. man maa ngi lay wër fu ne yow ndekete yaa ngi nekk di foofu ak say xarit ay ca kër ga.

C'est la vie à Ratang, c'est la vie à Ratang.